bon affaire mbuurkaat bi sax dafa am loo xam dama ko rétablir parce que mbuurkaat ni nu waxee ni administration dafa def erreur ak loolu demeewul noonu il faut ñu xam lan moo war a lotissement mbuurkaat bi parce que boobu man j'étais délégataire de signature du maire sur les actes ñun ñu recensé les impasses avec le avec le préfet faar euh, bi fi nekkoon ñu ñoo en recensé les impasses ak yooyu li fi xewoon mooy mbuurkaat fànn dafa foog moo ko moom am koo xam ne moo daan jaay kër yi. di jaay kër yi Fandène aussi doon def ay délibération si si tourni ñooñu loolu nag bi ñu defee bi ñu tracé frontière Fandène Thiès lan xam ne kaat bu baax a baax mu ngi si biir cees moo tax ñu def lotissement pour jéem a li nga xam nekkoon na fa ak eaux et forêt ñu ñu xool ñu forêt fan la yem ak loolu lépp ñu tracé ko ba loolu fekk nit ñi doon nañ jaay kër yi nit ñi doon fa tabax ba nekk leen li ñun ko dañ ko def lotissement régulariser ko loolu taxoon lotissement 2006 yi ngay dégg mu am mais tëb bu ñu tëb rek pour pour loolu aussi ma ma rétablir ko. boobu maa ngi si biir maa ngi si biir dégg nga loolu ma loolu la ko leeral noonu la affaire demee effectivement bi ñu délivré titre yi am na yoo xam ne mënuñu woon génn parce que dafa nekkoon si pour naa leen nañ ko régulariser demee noonu loolu bu ko defoon ko fekk mais li ma si am yi parce que de problème du mbourkat rek du mbourkat fan yi si ginnaaw gis nga Thiès nungu seen i kër kër kër la kër kër la ku am sa kër bugg yaakaar fa def dara ñu nangu ko jox ko ni dit ko jaay ko sa kanam au vu et au su de tout waaw dégg nga loolu loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi kon boobu nit ñi nan xool problème foncier ñu wax ko ñu rele ko nii ni ministre bi demee wax Macky ni ko problème mburkaat na ko wax ni am na ñu nangu seen i kër Thiès booy réglé da ngay réglé problème yi mais doo réglé ñi bàyyi ñii donc ñu réglé problème foncier bi parce que mu président aussi wut interlocuteur euh, crédible parce que ñi fi nekk ñi muy waxal ñoo ñoo yàq suuf si ñoo ko jaxas jaxasee ñoo ko jaxasee parce que ce qui se passe sur les désaffectations et réaffectations c' est inadmissible dans foog nga ne ni nga dem Dakar maire ville ba di séddale ay maire maire Mosek ay maire Sicap mas koo dégg ni nga dem ni nga dem Rufisque maire ba di séddale maire Thiès eh, eh, Rufisque Nord ak est de Sud ni dem Pikine est de Sud non les maires sont d'égale dignité la ville c' est une commune comme kon moo yeneen communes yooyu yëpp nekkul si kaw commune yi il faut que les gens quand même ne se leurrent pas par rapport à ça la ville de Thiès dafa disparaître pour que ça soit plus clair parce que bi ñu créé de plein exercice danoo ñëw la amoon sa maire bal moom lañ tas si communes yi le personnel et tout lañ tas mais at ataa bi jii buy jàppale communes yi la muy jox communes yi du ko jox Thiès ville tout la koy jox kon Thiès ville na xam ni léegi honorifique la amul lu mu mën def parce que suuf jiitewul quartier jiitewul délégué de quartier dara il faut mu xam réellement li fi nekk les populations ñu leeral leen xam ce que ville ak pouvoir yi ak la mën a def malheureusement nag les maires yi nangu di topp si ginnaawam di nekk ay vice ay vice président de commission mais ça c'est regrettable parce que ñoom dañuy rabaisser rabaisser leur maires yi par exemple def les maires des sous-communes et que toutes les communes de Sénégal sont d'égale dignité benn commune nekkul si ginnaaw commune bi loolu moo ñu metti moo tax ñu demander le président ces réglages de prendre de Mourkat na waaw bindu nga kër yi am na ko si dee si ñu jël seen kër mbuurkat am ko fa dee ba gars yi ni miix mais loolu dafa dafa dafa ñaaw y a quelqu'un këram fay nañ ko si 20 millions il a refusé de les di jéem tabax bi ko gars yi fee kenn fekk boobu mu am benn prêt di di tabax gars yi yi gars yi daaneel ko jox keneen mais soo tombee crise ba ba gaañu c'est des yoo xam ne fii la am si ñun ñu kër yi mën na kër yi am na sëriñ yoo xam ne dem nañ di leen ko may sëriñ yi bañ am na des fonctionnaires de l'état yu ñu doon jox kër yi ñu bañ parce que xam ne c'est de l'injustice il faut que nit ñi xam ko kon boog nanu nan nan nan nan nan régulariser problème bi nan ko régulariser ay nit bu fekkee da nga leen di jiite da nga leen di yërëm surtout ay problème kër même s'ils sont dans l'illégalité parce que muy DSCOS is na def proposition DSCOS nan def proposition si DSCOS nan def proposition si si yëpp yi mi def soobee yàlla yonent bi nan ko def mais li ñu xamal nit ñi daal mooy boo jiitee nit ñi na nga leen na nga leen yërëm comme yow yaa yor boo xam ne boo déclasse boo déclassé soirée bi ni ñu mën fi am seen kër te nga seetaan la ñu taxaw ba seen njaboot nekk fa xamoo ko nekk nu mu ko àndee ñooñu tamit vraiment ñu jëm leen a yërëm même si sont dans l'illégalité parce que kër boo ko jënd ñu dañ leen nax kër ak oto yam ak nit dañuy am dañuy am këyit gu tax nga muy kër mais acte vente du kër il faut tamit gën a sensibiliser nit ñi ni kuy jënd kër na jox ay këyit jox la fu leer nga nekk fa ñuy demande information bala nga jënd kër demal service cadastre dem impôt dem dem fépp nga laajte information xool kër ngay jënd kër la am du kër waaw lu war a war a kër am ay këyit loolu nag vraiment il faut quand même une campagne de sensibilisation ñu gën ko wax nit ñi ak aussi contrôler aussi ce qui se passe avec les gens agences immobilières c'est extrêmement te état baa ngi seetaan état baa ngi seetaan pour lotissement mën a am dafa am commission régionale d'urbanisme war a joxe autorisation de lotissement yi dans les communes autorisation yi ñu joxe nag autorisation yi leen gaa yi war a lotir mais fekk am toolam rek dagg ko ñëw ñu la demal fay fi am fii loolu lotissement il faut quand même qu'on explique aux populations lan xam moo si moo si nekk parce que ce qui se passe vers Tangor ainsi de suite mais c'est c'est c'est non c'est c'est une bombe qui est là il faut bi nag jël actuellement ay matuwaayam bala affaire bi di ëpp di ëpp di ëpp ëpp doole kër du da sa am sa tool nga dagg ko jaay ko ku la neex demee wut noonu si les communes boo ko dee dagg boo àndee commune ba na am procédure yoo xam ni na lay indemniser la nga sa am boo ko dee jaay nga def ko nga régulariser ko loolu mooy lotissement lotissement mënta am te amul question amul commission régionale d'urbanisme boo xam ni mooy ñëw de diriger lotissement yi war am dans toutes les communes région après commune yi mën a exé mën a loolu lañ war a dakkal wax a nit ñi leeral leen nan la nit di amee suuf ku jënd aussi ñu leer la fan nga war a jaar pour war a am kayitu kër yu valable loolu laa amoon lu ma si wax vraiment que di la gërëm di la sant aussi di ñaan président si comme mooy yor jiite ñëpp mu yërëm ña nga xam nekk na fa mu defaraat seen kër ñu ningoo seen kër ñu dellu leen ko te aussi autorité yi mu wax leen tamit ñu doxal yoon ñu doxal yoon ces autorités là vraiment ce qu'ils de faire c'est du banditisme foncier loolu nag war nañ ko war nañ moytu war nañ ko moytu si dëkk bi vraiment di la gërëm di la seen occasion bu nga may incha allah demain on va continuer la merci beaucoup.